jiiti réew mi Macky Sall nar a jannoog ñeneen ci taskatu xibaar yi ngir waxtaane réew mi rawatina lu soxal dat élection présidentielle yi coalition Diomaye président daal dinañ génnee benn communiqué mel ni kuy artu ci boobule communiqué ñu si fàttali kii di njiiti réew mi Macky Sall ne amul lenn loo xamante ne nii war naa féete kaw principe yuy dëgëral suñuy république république boobule sax mel ni rek lu tàmbalee jaxasoo gannaaw tension politique yu métti yi fi am fa ñu weesu ba ñetti doomi aadama daal ñàkk seen bakkan. ca noonee la candidat yi nga xamante ni nii dañu leen daal di rëkkale ci parrainage yi weesu ñoom li ñu bëgg mooy ñu dooraat lépp loo xamante ne nii moom mooy processus électoral bi mu mel ni rek ñàkk déggoo def cee daal di am ndax ñi jot a jàll ñoom li ñu bëgg mooy njiitu réew mi amal élection yi ci nu mu gën a gaawee loolu waral coalition Diomaye Président ba tey ci seen communiqué di xamal Macky Sall ne amul lenn lu war a tax ba du sàmmook ndogal bu conseil constitutionnel jël ngir rek ñu amal élection yi ci waxtu gannaaw bu njiitu ngir waxtaane yi lee jafe-jafe ñoom nag ba tey si seen communiqué ñu si xam ne nii dialogue su naree am faw rek président bu bees daal di toog ba noppi